kon mbokk yi incha allah ñu ngi war a jël tey aaya ñeen fukk ak benn muy quarante et un ci suuratul anfaal suñu borom di waxee ni waalamu annama ganimtum alhamdulilahi rabbil alamin وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala ci xéewalam yim ñu defal bokk na ci mu wërsëgal ñu ñu daje tey ji ci ab néegam fa séenee jàng ab téeréem yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dig ñu ci ci ay xéewal yu bari yu nekk ca loolu comme ni nga xam ne noonu ngeen ko yàgge dégge ñu ngi ñaan suñu boroom subhanahu wa taala loolu mu ci diggee yal na yàlla jagleel ñu ko jagleel ko it mboolem ña koy déglu ak fu ñu mën a nekk ci kaw suuf ca fayal ñu ñi nga xam ne ñoo dox suñu diggante ak ñoom na doon lu aju ci sit yi aju ci jàkka ji ak li nga xam ne mooy suñu télévision bii di dégg diine ak keneen ku dul ñoom boole leen ci ñi nga xam ne dañuy jottali kaddu borom bi subhanahu wa taala mi ngi noonu tey jii mooy ñaar fukki fan ak juróom ci li nga xam ne moom mooy rabiu saani ci atum 1445 di tombeeg le 10 la 11 le 8 naam le le 8 novembre naam di tombeeg kon le 8 novembre ci 2023 kon incha allah ñu ngi santaat suñu borom it. gannaaw ba nga xamee ne ni wërsëgaloon nañu lu ñu leen doon sàkku ñaan ci tukki bu ñu doon def alhamdulilah yàlla wërsëgal ñu ñu dem ci jàmm ca dikk ci jàmm di waxit bokk na benn kawteef it bu ñu fa yàlla subhanahu wa taala woon mooy mbooloo mi ñu àndaloon bokk na ki ñu jàpp moo ca gën a néew ay at ay fanweeri at yooyu rek lay toll yàlla dogal moom dong moo des ca tukki ba mi ngi noonu ñu di ndaw lu baax ñu koy wax sëriñ May Jóob mu bàyyil ndaw ñi leçon mooy en tant que ndaw it bu mu tax nga fàtte sa jaamu yàlla waaye it boole it jàngal ñu doomu aadama kenn xamul fooy dee mi ngi demee ci digg ndaw ay trente ans ànd ak énergie yooyu yëpp ay mbir la yoo xamee ne nii ndaw ñi dañ koy war di sóoraale bu dee jotee bu ñu waxee dee rek paa yi dañuy xalaat ak màgget yi waaye déedéet suñu borom yàlla mi ngi commencé ci biiru yaay yi la commencé ci biiru yaay yi la commencé di jël ay roox am na koo xam ne kër gum juddoo la dee baba ñii am téeméeri at ak lu romb loolu mbooleem néewi jurit yi yal na yàlla jéggal leen yërëm leen wala ñoo dugg it daan ñaanal suñu mbokk yee nekk ca Palestine yal na yàlla subhanahu wa taala wàcce ci ñoom ak dal ak yërmandeem ña ca faatu yal na yàlla boole leen mi shuhada ña nga xam ne ñoo ci tëdd feebar yàlla saafara leen ña fay dund yàlla teggi seen tiis te ci kattanam jalla wa ala mu delloo pexey Israil ak ñu ngemb ca gannaawam yépp wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila ñoom ñépp yàlla moo leen ëpp kattan yal na yàlla def ko li nga noonu kon incha allah ñu bàyyi ak Cheikh Ousmane mu jëla ñu suñu bind bu jëkk
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنبروم جل وعلا مني واعلموا اي واي خملين انما غنمتم من شيء لب لو خمنه غني ngeen ko ci lu meuna doon fa anna lillahi khumsa dana ñeel yalla un cinquième ba muy nañ ko xaaj juróomi xaaj benn xaaj ba dana ñeel yalla wali rasul ak ñeel yonentam wali zil qurba ak jege ñaale yonenta ba wal yatama ak jirimiya wal masakin ak miskin ya ñak wabni sabil ak ña nga xam ne dañoo doon ay étranger yu nekk ci dëkk bi tumuranke in kuntum amantum billahi billah su dee ne nekk ngeen kay di gëm yàlla wa ma anzalna ala abdina ak la nga xam ne wàcce nañ ko ca suñu jàmba yowmal furqaan ca bis ba nga xam ne moom mooy teqale ay diggante dëgg ak fen yowmal taqal jamaan bis ba mu dajee ñaari mbooloo ya wallahu ala kulli shay'in qadir te yàlla day bépp mbir mooy ko ci am kattan is antum bil udwati dunya jamono ja ngeen di nekk ca catu xur wa gën a jege وهم بالعدوة القصوى نيوم ني نيك تي تاتو خور وغنا سوري والركب اسفل منكم لي دي غاورغا موي كارافان با ابو سفيان جيتي وون گن لين سوفي ما جار تي بوري گيج موم دم نانيو ولو تواعدتم بودون دا نген جوخانتي وون اب ديك داي لاختلفتم في الميعاد kon doon ngeen juuyoo ca la nga xam ne mooy place ba ngeen waroon a daje ci seen rendez-vous ba walakin li yaqdiya allahu amran kaana mafula waaye yàlla namoon atte mbir moo xam ne lu nekkoon lu ñuy def la li yahlika man halaka am bayyina ngiree mu alku képp kuy alku ci layu leer wa yaxya man xayya am bayyina mu dund képp kuy dund ci layu leer wa inna allaha la samiun alim amma sa borom yàlla mooy aji dégg lépp aji xam lépp jalla wa ala mbokk julit gis nañu suñu borom yàlla diine yu jëkk ya heure bu ab yonent masaane xeex ba gañe ay noonam dañuy dajale liñ gañee ci armée bi yépp suñu borom yónni sawara mu jóge ko asamaan lekk ko lakk ko amma bi diine lislaam ñëwee suñu borom may ñu loolee ñu gañee ne mënees na yonent bi dagan na ci yow yaag sa xeet ngeen lekk ko amma suñu borom lan la jëkke mooy waalamu xam leen mbokk diine lislaam mooy diine xam avant ngay jëf loole ñàkk koo jëfee indi na erreur bu bari ci biir julit ñi imamul buxaari rahimahullah am na ci téeréem ba sahihul buxaari fu mu bind baabul ilm qabla al amal e way bala ngaa jóg di jëf jàngal ba pare mu daliloo ay bi suñu borom di wax naan faalam annahu la ilaha illa allah jàngal ba xam la ilaha illa allah ana ñaata nit ñooy xëy di wax téeméeri junni la ilaha illa allah par jour ci xam ni luy la ilaha illa allah xam ni luy la ilaha illa allah yaa ngi wax la ilaha illallah di sujjutal ay bàmmeel la ilaha illallah di sujjutal say mbokk ñi la ilaha illallah yaakaar keneen ku dul yàlla te la ilaha illallah lu muy firi mooy la maabuda bi xaqin illallah amul kenn ku yeyoo ñu koy jaamu di ko yaakaar di ko sukkandiku ku dul yàlla jalla waala kon mbokk julit suñ diine ji mooy diine xam soo amee say doom jàngal leen ñu xam diine waxuma nga yóbbu leen daara ñu mokkal alxuraan de loolu du xam-xam mbokk julit loolu ab base rek la waaye xam-xamu diine dañ koy jàng mu xam ay farataam xam atte yi aju ci la nga xam ne mooy diineem soxna buñ la may xamul dara jàngal ko diine wallahi dañuy gis mag ñoo xam ne ñi ngi nekk fii yor seen kurs kocc kocc dara xamuñu ko ci diine ji mi ngi noonu tukki bi ma tukkoon yàlla nattoona ma ku ma nekkaloon wallahi bal baqiyatu salihat xamu ko subhanallah 33 alhamdulillah xamul loolu xamul loolu xoolal leen mbokk julit keneen ma koy nettali sama benn waay mu àndaloon mu ne ma dafa moom it dafa ñëw am koo xam ne da koo woo fekk ñu muy jàngal nii mu ne ko kaay yow mu ñëw jox ko téere na ko taril ma xulóodul falaq mu tari xulóodul bi naas mu tari mu ne ko yow da ngaa jàng mu ne waaw mu ne ko gis nga sa mbokk yi fatiha laa leen di jàngal mënuñu tari fatiha wa ko loolu lu danger la kon nañ jàng nañ ñaax jigéen ñi ñuy jàng jàkka ji altine bu nekk ajjuma bu nekk jigéen ñaa ngi fi daje di jàng aka bari ay maire yu am 70 ans fii lañ mokkale fatiha dund ba am 70 ans mënoo tari fatiha kon diine ji mooy diine jàng faala i'lamu wa'lamu xam leen léegi nag lu ñu war a xam mooy bu ñu xareek noon yi ba gañe leen dañuy indi butin bi yépp daal di teg yonente bi alayhi salaam nee na ku ci sàccoon lu toll ne pusa sax da nga koy indi yowmal qiyaama butin bi yépp la ñuy indi teg ñu xaaj ko juróomi xaaj benn xaaj bi suñu borom mu ne yàlla ko moom ak yonentam te loolu moo jëm trésor public yonente bi alayhi salaam xool lan muy priorité ci la koy bett mu defe ko su ko defee borom xam-xam yi dañ naan juróomi xaaj yooyu buñ ko xaajee ba yonente bi jël juróomeel bi juróomeel boobu it yonente bi moo koy xaajaat juróomi xaaj benn bi moom dana ci dund moom njabootam mooy président de la république mooy procureur mooy président tribunal bi moom mooy jiite lépp moom njabootam daan ci jël lu ñu dundee gannaaw ba it borom bi subhanahu wa taala ne nañ ci jox ay jegeñaaleem te mbokk suñu borom ci maandu teem famille yonent bi dafa araamal ci ñoom ñu lekk zakat looloo tax li ñu gañee ci guerre bi yonent suñu borom ne yonent bi kon jëlal ci loolu jox leen ci ñu ngi noonu loo tax ba yenn ci borom xam-xam yi sax dañuy daan maadaama xums boobu amatul ah famille yonente bi kenn du araamal ci ñoom zakat léegi ndax lañ leen doon jox amatul kon buñ ci gisee ay pauvre yeyoo nañ ñu jox leen zakat loolu gisinu lenn ci borom xam-xam yi la gannaaw ba it mbokk ku wax jihaad wax dee wax dee am déet ñi dee ñaata la ñuy bàyyi mo gaa yi tey Israël Palestine gee ñaata jirim ñoo fa nes tey ñaata jirim weer wii ñu ñu dund nii ñaata jirim tey ñoo am Palestine kenn xamul nañu toll loolu it jirim yooyu ci jiite jullit ñi ci jamono bu yonent bi la moo leen war a gérer nu ñu leen di taxawoo gannaaw ba miskin yi ñëpp xam nañ ko mooy ko amul dara ña nga xam ne dañoo tumaranke ci réew mi amuñu dara lii suñu borom mu ne ñoom la ñuy jagleel un cinquième boobu su ko defee quatre cinquième yi des mooy li des ci mbir ma ñu séddale ko ña nga xam ne dañ doon jihaad ñu séddale ko ña nga xam ne dañ doon jihaad borom bi subhanahu wa taala nag ne su dee gëm ngeen li ñu wàcce ci suñu jaam bi yowmal furqaan ca mbokk mooy xare badr xare badr la yàlla leerale ne yonent bi ak i sahabaam ñoo nekk ci dëgg gannaaw 15 ans yonent bi di woote nit ñi di ko saboote ka ayibal ak ngeen xamul waaye gis nañu ne caatum ñaareel ba ca gàddaay ga mu jóg ànd ak ñetti téeméeri nit waa Makka ñëw nekk junni nit te ñoom bi ñuy ñëw ñi ngi préparé ne dañuy guerre yonent bi xalaatul woon ne day guerre ak waa Makka junni nit ñëw ñu dajale leen ñetti téeméer dàq leen rey ca juróom-ñaar fukk yeew ca juróom-ñaar fukk ña ca des daw day wane na kon ñi la yàlla àndal am déet jàngoon nañ ko ci gannaaw in tastaftihu faqad jaakumul fath su ngeen dee sàkku rek ubbee yàlla ubbee na leen loolu mooy yowmul furqaan di yowmu badr ñooñu nga xam ne ñoo gën ci xeet bi gannaaw yonent yàlla bi ñi gën ci xeet bi gannaaw yonent yàlla bi mooy ashabul badr ñu ngi noonu ñu bàyyi ci xel bu baax borom bi subhanahu wa taala nag ne mooy ki am kàttan ci lu mu mën a doon te it mbokk yàlla bëggul kuy bàkku ndam la amoon badr yàlla lañ koy delloo am déet wa ma ramayta is ramayta walakin allaha rama falam taqtuluhum walakin allaha qataluhum gis ngeen ñu delloo mbir yépp yàlla julli ci day gëm ne wallahu ala kulli shayin qadir mbokk julit bu demoon tey ba miiram sës ci ba gannaam sës ci miir bi ay pexem jeex na waaye wallahu ala kulli shayin qadir am déet yonent yàlla Moussa ba mu demee ba sës ci géeju ba ban Israil ñoom ñëpp ñu ne jeex na tey la ñuy dee inna la mudrakoon daf ne kalla inna ma ay rabbi allahu ala kulli shayin qadir looloo tax mu am ay zikr ñu yonent bi alayhi salaam bàyyee képp ku xëy suba su ma nee ngallaway nay wax la ilaha illa allah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير neena lii ki ko wax téeméer yoon ci bis bi amul kenn kuy mën a jëf jëf bu gën a rafet sa jëf ci bisu këram mi ngi noonu ñu bàyyi ci xel bu baax borom bi di détaillé loo xam ne nii boo xooloon la nga xam ne mooy dessinateurs yi mën nañ ko def plan bu rafet yàlla jëli ne waa makka makka jële waa madina madina diggante bi 450 kilomètres suñu borom yàlla teete yonente beeg sahabaam teete waa makka ba ñu jàkkaarloo ci benn xur di nattale boo xam ne yàlla moo ko nattale ñii jóg jàkkaarloo ñii jóg jàkkaarloo ak ñoom borom bi subhanahu wa taala ne yéen a ngi nekk ci catu xur bi ñu nekk ci catu xur bi mu ne bu doon yéen a joxonte rendez-vous ne nañ daje ca badr ndax place boobu moo nekkoon badr yéen a ngi nañ daje ca badr kon da ngeen gis da ngeen wuute wuute ci ñi ragal bañ a dem ñii ragal ba ñu ñëw waaye suñu borom mu ne moo dogal mbir moo xam ne li mu dogal fokk mu am ca nga la way école école tubaab école tubaab xaj nañ ñu lu rëy rëy rëy rëy mbokk sunu bàyyi sunu maam yi lépp lu masaan am dañ naan yàlla dogal am déet ndaa daa gis ne damaa gis ne rek yàlla dogal ma dajeeg moom ñun nag ñu wecc ko par hasard yaa ngi dégg par hasard par hasard kan la waaye ndaw yi jurit ñi génne leen loolu seen langage par hasard hasard amul yàlla subhanahu wa taala mooy dogal benn camion day jóge ci Richard Toll guddi gi yëpp muy daw benn 4x4 julli fajar toilette ak mbokkam daw ñu dem àllub kaañ rinkum daje am déet une minute rek bu ko keneen ki manqué woon du ñu daje am déet gis ngeen yàlla dogal heure x lañu war a daje place x lañu war a daje loolu dogalu yàlla la moo tax julit lépp lu ko mën a dal danaan qaddara allahu wa ma shaa faal yàlla dogal na li neex yàlla rek moom mooy am gis ngeen ngiree yàlla dogal mbir boo xam ne fokk mu am lu yàlla dogal moom fokk mu am borom bi nag ne def naa lii ngiree képp kuy alkoote alko ci lu leer mooy kuy sax sa yéeférit xam nga ne yonent yàlla muhammad yàlla ko yónni yaa xam wa man yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda mi ngi noonu yaa xam képp kuy dund it sa dund leer mooy sikk sàkka ñi doon xaw a sikk sàkka tuuti ci jullit ñi gannaaw yow mu badar ñoom ñëpp seen ngëm dafa dëgër ñu xam ne lii ñu nekk moom mooy dëgg ala bayyina borom boobu nag subhanahu wa taala mu ne moom mooy kiy dégg lépp mooy ki xam lépp jalla wa ala yàlla nañu dundal ci ala bayyina te loo xam ne ngërëmam da caa nekk mi ngi noonu Cheikh Ousmane
يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون barakallahu fikum suñu borom jalla wa ala mu ne iz yurikahumullahu bala leen yàlla di won fi manamika qalila bala yàllay won yéeféeri ci sa biir nelaw nga gént leen gis nañu néew lañu walaw araakahum kasira bu la ko bu leen leen wonoon fekk ñu doon ñu bari la fashiltum kon day doon ngeen doon ñu nasax ay ragal wala tanaza'tum fil amr ca doon ngeen xëccoo ci mbir mi walakin allaha sallam waaye yàlla moo muccile ci loolu lépp innahu alimun bi zati sudur ndax yàlla daa xam ne nekk ci biir dënn ya wa iz yurikumuhum fàttalikul ba leen yàlla di woon yéeféer yi iz iltaqaytum fi ayunikum qalila jamono ba ngeen di daje yàlla woon leen ne yéeféer yi day ñu néew lañu wa yuqallilukum fi a'yunihim yéen it mu néewal leen ci bëti yéeféer yi li yaqdi allahu amran kaana mafuula ngiree yàlla subhanahu wa taala attee mbir moo xam ne nekkoon na loo xam ne lu ñuy def la wa ila allahi turja'u al-umur ci yàlla la mbir yépp di dellu yaa ayuha allazina amanu ay yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm ida laqitum fi'atan fasbutu heure bu ngeen dajeeg benn mbooloo kuréel ci yéeféer yi sax leen wazkuru llaha kasira ca ngeen di tudd yàlla lu bëri laallakum tuflixuun ngiree ngeen doon ñu texe mi ngi noonu mbokk julit suñu yonent salallahu alayhi wa sallam gis nañu ne waa makka jóg nañu ñi ngi ñëw jëm seen kaw léegi nag mu amoon ñaari ñaari position yu ñu waroon a jël benn ndax dañuy daw dellu madina wala boog ndax dañ leen di xaar suñu borom yàlla comme daa am mbir bu mu namoon mu yonent bi alayhi salaam tëdd gént yàlla won ko waa màkkaa ngi ñëw mais mu won ko ci lim bu néew gis ngeen lim bu néew ba mel ni ëpp ñu leen lu bari yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne sahaaba yi ñii nañu leen xaar ndax lim bi ma yàlla won mënuñu ñoo të gis ngeen fekk ne waa makka ëpp nañ leen trois fois waaye loolu nga xam ne suñu borom won na ko yonent bi ci ay nelawam yàlla dëggal na ko dëggal na ko ci biñ demee ba julli léegi yéefiri jàkkaarloo suñu borom ci gisunu bët dafa tuutil yéefari ci kanamu julit ñi ba julit ñi gis leen comme na leen ko yonente bi alayhi salaam waxe woon ñu ngi noonu donte ne matoon nañ mille waaye abdullah ibnu masud mi ngi nettali naan am na ñaar ñu mu dendal dégg kii naan ah wa ñii est ce que mat nañ cent ki mu dendal na ko ah déedéet ñii est ce que duñu soixante dix gis ngeen yàlla niiwal ko ci seen bët te loolu mbokk yàlla mooy koy def lu ko neex te da ngay gis benn waay bi mu yokk nga woon ko benn baaraam ñaari baaraam lay gis am déet loolu kon mi ngi noonu kon yàlla mayul bëti ay bëti jaamam nu mu ko neexee loolu nag la yàlla def ci yéeféer yi mooy saxaaba yi ñetti téeméer lañu woon waaye yàlla néewal leen ci bëti yéeféer yi bañ mel ni téeméer lañu yéeféer yi préparé wu ñu dara ne ñii ah ñii de ñetti minute rek ñu ñu ñu daaneel leen jullit yi it am courage ñoom it pour dal ci seen kaw suñu borom mu ne li lépp maa ko def ngiree mu doon mbir boo xam ne bu ñuy atte la te it mbokk loolu ñu wax ci gént gi gént suñu borom dana ci wax ak doomu aadama yi te mooy léeg-léeg yàlla won la xéewal ci say gént heure bu loolu amee bu ko nettali lu dul koo jàpp ne bëgg na la soo mënee nga ñaan yàlla dëggal ko seytaane it yàlla may na ko mu ñëw ci doomu aadama buy nelaw won ko gént goo xam ne day koy déranger ñii dee nañoo di yàqu lañoo sa alal ji yàq na su boobaa yonent bi alayhi salaam nee na ëffal sa côté càmmoñ ñetti yoon nga muslu ci cheytaani muslu ci ay li ngay gént ñetti yoon bu ko nettali kenn ca na sa xel dal du la lor mukk ci àdduna loolu du la lor mukk ci àdduna loolee ñu bàyyi ci xel bu baax boo dee mën ci sëriñu tariyaax yi nag ñu ne la ah lii day nangam mooy dal nangam mooy dal fokk nga rendi lii nangam lii gannaaw la nga leen jox ndugal seen poos ñoom yaa ngi dégg waaye déedéet loo gént lu mu garaaw garaaw garaaw garaaw bum la yàqal sa kaasu café bi ngay ndé- ndékkee suba ëffal sa côté càmmoñ ñetti yoon yàlla yàlla nga musal ci cheytaan musal ma ci ay lu ma gént jeex na yonent bi sam nee na du la lor sunu borom it ni muy dëgg la ab yonentam gis ngeen ibrahim nee na géntoon na mi ngi rendi doomam mais ndax rendi na ko rendiwu ko mais acte bi def na ko yonent yàlla yusufa mi ngi géntoon jant beeg weer yi du ko sujjutal ndax jant beeg weer bi ko sujjutal déedéet waaye mandarga ba ñëw na mooy papam ak yaayam ak ay frère am sujjutal nañ ko loolu it moo tax yonent bi alei salaam lu mu géntoon ne ñii ñu tuuti la ñu it yàlla wan la ko lim ba doon ñu tuuti doonte ne ci réalité nekk nañu loo xam ne ay mbooloo mu bëri lañu borom bi nag ne yàlla moo xam li nekk ci biir dënn yi loolu it mbokk jullit war a boole ñaari mbir gàlluwaay rafetalal say jëf ca sellal sa yéene jëf bi lu mu rafet rafet ci yéene bu baaxul yàlla du ko nangu jëf bi lu mu rafet rafet ci yéene bi baaxul yàlla du ko nangu ak lu jëf bi rëy rëy ci kanamu nit ñi bu dee ne sa xol yéene woo ni lii yàlla rek a tax ma koy def yàlla du nangu jëf bi loolu ñu bàyyi ci xel bu baax façon misaal bu ne yonente bi alayhi salaam jox nañu ko ci loolu mi ngi noonu borom bi it subhanahu wa taala ne xam leen ne ilallahi turja'ul umur yàlla mbir yépp ci yàlla lay dellu galawaay yow ndaw bi nekk ci examen booy def xamal ni ilallahi turja'ul umur man nga nekk le plus brillant ci classe bi yàlla dogal nga échec échec boobee waxal alhamdulillah yàlla dogal na moo xam lu muy dogal yàlla mën na laa échec loo ci examen bi ngir dalaa waajalal bunt boo xamee ni nii suñ ca demee fii ak 10 ans ñoo ñuy réussiroon da nga leen raw ci àdduna fukki yoon ak juróom kon ilallahi turjaul umur yow mi bëgg nga xam ne da ngaa demoon di bëgg ab soxna yow mi nga xam ne jëkkër da nga da nga koo bëgg yow mi nga xam ne da ngaa bëgg tukki yow mi nekk ci lu mu mën a doon xam ne ilallahi turjaul umur seetal la sa warugar nga def ko lu ci des nga sukkandiku ci yàlla lu yàlla dogal nga gërëm ko te xam ne doomu aadama bi it du may boppam lépp loo jëm réussir ca it boo paree santal yàlla yàlla ko dogal ilallahi turjaul umur loolee mbokk muy dalloo doomu aadama bi ci xam ne it noonu muy amee àdduna noonu lay amee alaxira mbokk alaxira duñ dem ci abubakar mu ñuy àttee duñ dem ci yeneen yàlla Moussa mu ñuy àttee duñ dem suñu bàyyi aadama mu ñuy àttee ilallahi turjaul umur yàlla mooy àttee diggante ay jaamam te yàlla moo xam ne ci biir dënn yi yàlla mooy ki nga xam ne dara réeru ko su ko defee ilallahi turjaul umur ñu fexe ba góorgóorlu yàlla moomu ñu sellal suñu diggante ak moom borom boobu nag wëlbatikuwaat santal julit ñi juróomi mbir yuy tax ba bu ñuy jihaat ñu mën a gañe ñaar yi la ñuy jàng nii wala moom la ñuy Cheikh Ousmane jàngal léegi mooy yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm heure bu ngeen dajeeg mbooloom yéeféer fasbutu sax leen jàngoon nañ ca gannaaw mu ne fala tuwalluhumul adbar bu leen dawoon leen gannaaw kon fasbutu sax leen te it day leen tudd yàlla lu bari su ngeen bëggee texe te mbokk zikrullah mi ngi noonu da ngay gis ne ab julit lépp lu muy nekk da koy booleeg zikrullah rawatina la nga xamee ne nii mooy wàllu jihaad sahabatul kiram buñ daan jihaad ak sa ak ak yéeféer yi seen lammiñ daawul dagg ci zikrullah ndax xamoon nañ ne loolu mooy seen essence mooy moteur bi nga xam ne moo leen di soutenir zikrullah ci ñaan yàlla buñ daan départ ay takbir lañ daan attaqué mi ngi noonu takbir mi ngi noonu gannaaw ba tudd yàlla lu bari tudd yàlla googu moo tax ba xatta bu julli jotee jihaad bi lu mu tar tar ku ne na nga mën a jullee da nga ko jullee imma ñu xaaj armée bi julli wala imma ñu julli suñu kaw fas wala imma ñu julli suñu kaw tànk waaye zikrullah moom duñ ko bàyyi gannaaw te li ci gën a màgg moom mooy julli waaw gars yi suñu borom mu ne ñii nekk di cawante ay jaas yi tudd leen yàlla waaw yooyu mi nekk ca sa waañ di day togg nag te waaye boole koog zikrullah yooyu mi dawal sa oto boole koog zikrullah yow mii def lépp loo xam ne yaa ngi koy def ci liggéey nga la waay boole ko zikrullah position bi gën a rëy bu gën a barkeel bu doomu aadama def mooy lépp looy def nga la waay boole ko zikrullah loolee ñu bàyyi ci xel bu baax xatta natt bu rëy bii ñu yàlla nattoo mi portable yi nga xam ne ñii jël na 8 heures de temps ci seen dund chaque jour am na ñum jël 5 heures de temps 6 heures de temps seen dund ngan la way buñ koy xool nañ ko bëleg zikrullah sëñ tam mën nga ko di astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah té té astaghfirullah mais lu mën a bëri ko zikrullah rek del wax zikrullah la ilaha illallah subhanallah nga xool tey benn vidéo boy seetaan ça fait une heure de temps gars yi une heure de temps combien de istighfar moo ci mën a am une heure de temps combien de subhanallah moo ci mën a am loolee kon nga la way tàmmalal sa bopp benn waay ñëw na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ko dénk ma yow mi yàlla yónni loo xam ne dana yomb ci man tabal ma aljanna mu ne ko sa làmmiñ bi bu mu dañ de tooy ci zikrullah jeex na sa làmmiñ bu mu dañ de tooy ci zikrullah lépp lay def boole ko ak zikrullah moo tax suñu borom mu ne tudd leen yàlla laallakum tuflihun tudd leen yàlla laallakum tuflihun yàlla nañu yàlla dimbali ci ñu koy fàttali ko fu ñu mën a toll mi ngi noonu Cheikh Ousmane
وأطيعوا الله ورسوله
وأطيعوا الله ورسوله ولا تنزهوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب
barakallahu fikum suñu borom mu ne wa atiu allaha wa rasula e way topp leen yàlla ak yonentam wala tanaza'u fatafshalu e bu leen nekk mukk di xëccoo kon day da ngeen doon ñoo xam ne ñu nasax ngeen doon ñu échec ngeen doon wa tazhaba riixukum ca it dana dem la nga xam ne mooy seen kattan wasbiru e way muñu leen inna allaha maa sabirin yàlla mi ngi ànd ak ñi nga xam ne dañuy muñ wala takunu kallazina xaraju min diyaarihim bu leen mel mukk ne ñi nga xam ne dañoo génn ci seen kër ya batarom wa riaa annas doon ñoo xam ne ñu bew lañu ñuy ngistalu ñu nit ñuy ngistalu ci nit ñi wa yasudduuna an sabilillah ak di fegaate ci yoonu yàlla wallahu bima yaamaluuna muhiit donte ne yàlla day la ñu doon jëf ku ko peeg la way zayyana lahum shaytaanu amalahum fàttalikul ba leen shaytaan yi taaralal seen jëf ya wa qaala laa gaaliba lakum alyawma min annas mu ne xam leen tey ji day amul kenn kuy not ci seen kaw ci ci di jóge ci nit ñi wa inni jaarun lakum te man maa ngi nekk dëkkandoo ñeel leen falamma taraat alfi'atan bañ demee ba jàkkaarloo la nga xamee ne nii gisante ñaari mbooloo ya nakasa ala aqibayhi nakasa ala aqibayhi noonu la delloo dëddoo delloo gannaaw ci ay ndëggoom wa qaala inni bari'un minkum mu ne man day ku deñ laa ci yéen inni ara ma la tarawun man day maa ngi gis loo xam ne gisu leen ko inni axaafu allah man day ku ragal yàlla la wallahu shadidul iqaab ndax yàlla ko tar na muy mbugale ay jaamam la mi ngi noonu bokk jàngoon nañu juróom yi tax doomu aadama yi di mën a gañe mooy sax cay tudd yàlla lu bari borom bi dolli ci ne topp leen yàlla topp yenent yàlla te ba mi mi ngi noonu muy ñetteel bi wala tanaza'u muy ñeenteel bi wasbiru muy juróomeel bi mbokk topp yàlla topp yenent yàlla gis nañu ne mooy garantie julit ñi julit ñi duñu am kattan lu dul ne dañoo topp yàlla topp ndi yonent yàlla suñu borom yàlla jox ñu ci misaal yu bari keroog ghazwatu uhud yonent bi sallallahu alaihi wasallam teg ne armée bi am ñoo xam ne def na leen dem leen ca montagne bi muy jabalu rumaat nga xam ne boo demee Madina ba tey ma nga fa dem leen toog foofu juróom fukki ay fittkat mu ne su ngeen gisoon ay picc dañuy saxatoo sax yéen bu leen wàcc tànk joxewuma ndigal waaye gis ngeen ba yonent bi àndeeg desut sahaaba yi ñu dàq yéefir yi jóge woon makka ñoom au lieu ñu xaar ndigalu yonent bi ñu ne ah waaye gars yi daw nañu nañ wàcc amir bi leen jiite woon de abdullah ibnu jubayru ne leen hey yonent bi nee noon bu ñu wàcc lu dul moo ñu jox ndigal gars yi ne waaye gars yi daw nañu ba ñu wàccee rek fekk ne ki yonent bi mujjee tudde sayfullah muy xaalid ibnu walid moom bi mu ñëwee ba xool plan de guerre bi la xam ne ne ne tant que ñi ñi ngi ci kaw montagne bi pour ñoom ñu gën a dana jafe la defoon moom en réserve ba mu gisee gars yi wàcc rek mu ànd ak gars yi mu àndaloon ñëw taxaw seen place fitt yi commencé dal ci kaw jullit ñi jullit ñi daw tasaaroo looloo tax ba dañ naan ghazwatu uhud victoire l'islam la defetu jullit ñi la am déet ndax bu ñu defe woon topp yàlla ak topp yonent ngañaay la muy continuer waaye maadaam moom mooy niñu yàlla mooy yonent gis ngeen li leen dal mbokk yi nañu xam ne tey lay xew Israël métti na lool lay xew Palestine métti na lool waaye it lu ci bëri it mbokk jullit yi ñoo ko fàggu de jullit yi tey ñoo boole ñaari mbir mooy fàtte nañ lu ëpp ci ñoom yàlla ak yonent yàlla bokkaale gu rëy dox ci ñoom pom yi it bëri ci ñoom trop am po bëri na rawatina ci dëkk arab yi loolu nag yonent bi alei salaam waxoon nañu ko nee na su ngeen demee ba ida tabayaatum bil ayn wa raditum bi zar wa gannaa ba aqastum asnaab al baqar su ngeen demee bay jaayante ci commerce bu bon kenn xalaatatul lu dul foo jëlee inter riba seen yoon néew ci commerce seen yoon néew ci topp la nga xam ne mooy gennu nag yi ku nekk say tool ngay lijjanti mu ne su boobaa day sallallahu alaykum zullan yàlla dana indi ci yéen toroxtaange du ko dindi lu dul ngeen dellu ci seen diini loolee kon bokk ñu xam ni suñu bëggee tey te daanga delluwaat ci jurit ni mbokk yoon ba nekkul lu dul nañ delloo jurit ni ci yàlla suñu delloo jurit ni ci yàlla ñu gëm yàlla bokkaale wuñ ko wallahi benn yéefar du taxaw suñu kanam suñu borom li mu wax du dañ in tansurullaha yansurukum su ngeen dimbale yàlla yi dimbalu leen aw foo bi ahdi uu fi bi ahdikum matal leen sama dig ma matal seen dig kon atiu llah wa rasul topp leen yàlla ak yonent yàlla waaye it wala tanaza'u fa tafshilu heure bu ngeen juuyoo da ngeen da ngeen da ngeen échec loolee moo tax ba islam dafay santaane mbooloo julit heure bu ñu àndee dañu war am amir yonent bi sax mu ne bi ngeen leen tukki sax ut leen ku leen jiite kookee ñu tapp ko moytu la nga xam ne muy juyoo juyoo mooy jur échec ca kër ga la ca état ba la ca lu mu mën a doon su ko defee juyoo lan mooy tax ba ñu mucc ci mooy tanazul mooy ku nekk jàpp ne man de lii ma jàpp jàpp naa muy dëgg waaye ne ngir jàmm am danaa bàyyi sama dëgg gi fekk si mbooloo mi sama intérêt naa ko bàyyi fekk si mbooloo mi amul lenn looy bàyyi ci yàlla tax lu dul yàlla dana ko wëlbati ko mu mujj nekk intérêt ñeel la loolu ñu bàyyi ci xel bu baax mu nekk nag aussi luy métti xol lool suñu borom mu ne su ngeen juyoo da ngeen échec gars yi Sénégal ñaata parti fi am ministre de l'intérieur sax xam naa xamu ko am de plus de trois cent quelques partis ah loolee mbokk da ngay gis ne musiba la gàlluwaay day leen jéem a ànd su ngeen nekkee ci kër boole leen su ngeen nekkee ci jàkk fexe leen seen kaddu nekk benn su ngeen nekkee société seen kaddu nekk benn tant que yéen a ngi nekk benn rek yàlla ndimbalu yàlla ñëw ci seen kaw tant que yéen a ngi nekk benn ndimbalu yàlla te mais bu ko nekk xaccee mbiram rek yàlla seetaan leen tanaza'u tafshalu ni ngi noonu borom bi it subhanahu wa taala ne wegeel gañ leen wegoon ay seen kattan riixukum xam ngeen riix mooy ngelaw moom la yàlla alagoon wa aar mooy seen kattan day dañ su ngeen juyoo rek dootu leen am kattan te loolu moo dal suñu mbokk arab yi mbokk arab yi tey la fa nekk ci alal nekk fa ci puissance bu ñu nekkoon benn bopp Amérique du leen mënal dara Russe du leen mënal dara waaye malheureusement ànduñu mi ngi noonu tanaza'u fa tafshalu borom bi nag daal di koy tëjee nii bi wasbiru mbokk muñ yeneen ci bàyyi salaam nee na yàlla mayul ab jaamam lu gën a yaatu muñ muñ mooy tax nga mën a def santaane yàlla yi muñ mooy tax nga mën a bàyyi tere yàlla yi muñ mooy tax nga nar a ngay nga mën a attan muñ dogal yi yàlla di wàcc ci yow mbokk ñett yi muy muñ muñ ba def ndigal yi julli yi koor yi aj yi génn zakaat yi ila axiri muñ bàyyi tere yi fenn yi njaaloo yi jëw yi rambaaj yeeg ak riba ak lu mu mën a doon waaye it muñ dogal yi yàlla wàcc ci yow catastrophe réel la ci sa njaboot catastrophe ci sa la nga xam ne mooy sa jëm catastrophe ci sa alal catastrophe ci sa nangam nga muñ ko ci yàlla tax suñu borom mu ne inna allaha maa sabirin yàlla ngi ànd ak ñi nga xam ne dañoo muñ waa makka bi ñuy jógee makka abu sufiyaan daw na ak caravane bi loolu taxoon yonente bi jóg ak i sahabaam ba mu demee ba màkk mu yónni benn ndaw ne abu jahal ah man kat mucc naa man ngeen ni bisi ndax mucc naa si na màkk abu jahal daal dina mukk ci àdduna ñun waa màkk génn dañuy dem ba badr mi ngi noonu bu ko defee ñu rey suñuy gileem suñ jaam yi jigéen ñi wayal ñu waa arab yépp xam ne génn nañu kenn dootuñu yabati fekk ndëkkate yoo tam ma nga jëm ca bàmmeelam borom bi nag mu ne boo leen mel ne ñooñu nga xam ne dañoo génn bataron war ya annoos bataran bew ngistalu nit ñi mooy lu yàlla gën a bañ mooy ngistal di fekk ci yoonu yàlla ca borom bi nee na la nga xam ne lañ doon def yépp yàlla moo ko pekk mi ngi noonu bokkoon na loo xam ne nii amoon na keroog badr waa makka bokkoon na luñ doon ragal benn giir bu ñu amoon doon problème muy bànd mudrich ñu ne ñun waaw ñun ñëpp buñ génnandoo ba duñ ñu wuutu seytaane ñëw waaye seytaane bi nga xam ne mi ngi dund ba tey suñ demoonay tey seytaane ñëw indi melokaanu kilifa bànn mudlic suraqa ibnu malik ñëw fekk waa makka mu ne leen man maa ngi nii na seen xel dal man sax damay ànd ak yéen ci jihaad bi pour wane ne kon suñ dëkk lu leen attaqué mukk gaa yi seytaane boobu mi ngi dund ba suñ demoonay tey xam naa tous les grands réunions des francs-maçons moom moo koy jiite gis ngeen tax yàlla may na loolu jinne mën koo def comme ni mu ko mayee mën a mayee malaaka ñaata yoon la jibril ñëw sahaaba yi gis ko mu ñëw ci melokaanu dixeetul kale bi ak melokaanu bu ñu xamul comme hadis bu siiw boobu nga xam ne nii mooy basul islam ba mu ñëwee jàngal laaj yonente bi ay laaj ba mu dem yonente bi alayhi salaam ne jibril la woon ma leen doon jàngal seen diine kon gaa yi ànd ak suraq ibnu malik ñii ñëw borom bi subhanahu wa taala nee na ba ñu demee ba ñaari armée yi jàkkaarloo seytaane seen jibril mi ngi ñëw àndi ki malaaka seytaane na wëqet daw gars yi naan ko suraako suraako mu ne toog leen foofu man maa ngi gis loo xam ne du ngeen ko gis te loolu lañu yàlla wax innahu yaraakum huwa wa qabiluhu min haysu la tarawnahum seytaane day gis ci doomu gis loo doomu aadama dul gis ñun duñ ko gis looloo tax bokk na ci ñaan yooyu ñaan mooy ngay làqu ci yàlla yàlla seytaane mi ñuy gis ci ak ak ak ak famille muy mboolem jinne dañ lay gis dañuy gis yi duñ leen gis yow it yaa ngi leen di gis ci gisu ci gisuñu la kon yàlla ñu musal seen ay am déet mi ngi noonu kon mu ne maa ngi gis lu ngeen dul gis looloo tax yonente bi alayhi salaam day wax ne iblis toroxtaange gi gën a rëy ci dundam mi ngi ko am keroog badr ak bisu arafa bisu arafa it day dem di jël suuf di xëpp ci kawam di yuuxu ndax li muy gis yàlla di goreel ay jaam ci sawara mooy sama liggéey yëpp yàlla yàqu na ko waay gis ngeen loolu loolu nga xam ne yàlla day goreel jaam yi da koy métti muy xëppoo suuf ngir loolu borom bi subhanahu wa taala ne kon loolu la wax mu ne xam leen ne day yàlla subhanahu wa taala mooy ki nga xam ne mooy ki tar ay mbugal loolu it mbokk dañu ñuy jàngal ba tey it ñuy bàyyi xel aka bari ay nit ñu naan dañoo dajeeg sëñ diw mu defal leen teraanga nangam mbokk fenn ñu de seytaane moo leen day naxe ibnu taymiya rahimahullah tëj nañ ko ca ah, kaso sham ya am ay gaay yu ñëw ci àll riir riir daa dina yaa ibnu taymiya ibnu taymiya am ku génn ñëw may leen ndox gindi leen ñoom bañ dellu see ci dëkk ba naan ñun de ibnu taymiya moo ñu defal lii daay na ko mi ibnu taymiya ma nga ca kaso ba bañ demee wax ko ko mu ne wallahi seytaane moo jël sama melokaan gis ngeen seytaane jël sama melokaan ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seytaane mën na jël sa melokaan sëriñ boo foog sëriñ boo yaakaar seytaane mën na jël melokaanam feeñu la ci ay nelaw nga ne yaa gis sëñ diw ci nelaw mu defal la nangam defal la nangam am na ñoo xam ne seytaan dana yë- yëgg sax feeñu leen fekk nelawuñu mi ngi noonu mu indi melokaan ci melokaan yi mi ngi noonu soo demee téere boobu nga xam ne mooy talbisul iblis bu ibnul qayim rahimahullah da lay wax kaawtiif yoo xam ne nii rek seytaan nam cay naxee doomu aadama yi da ngay gis ay sëriñ yoo xam ne dañuy dee ñu ne waaw na seen xel dal su ngeen dee bàyyi leen ma rek man danaa ñëw sang sama bopp dañuy toog ba mujj rek ñu gis ku mel ne sëñ bi ñëw sang sang nii bi dem fekk lan mooy def loolu mooy seytaan mooy def loolu ndax yàlla dalee na mën a may ñuy wëlbatiku di jël ay melokaan lu dul la yàlla subhanahu wa taala aar loolu kon mbokk mi ngi noonu ñu ngi naan borom bi subhanahu wa taala yàlla nañu yàlla boole ci ñu topp yàlla topp yenente yàlla yàlla nañu yàlla musul ci ak juyoo yàlla nañu yàlla wërsëgal boole ñu ci jaamam yi muñ muñ googee ba tabbi biir aljanna wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain
Ali.
wala kulli xaal euh, wàllu soxna moom daf cee am lu dagan ak lu xaraam gannaaw ba am luñ ciy tànn li dagan mooy dagan na nga takk bépp chrétien bu gëm diine chrétien bépp juif bu gëm diine judaïsme bépp julit boo xam ne gëm na yàlla gëm na àllaaxira dagan na nga takk ko loolu mooy wàllu dagan gi mu des nag ci wàllu la yonente bi alayhi salaam waxoon ida jaakum man tardawna diinahu wa xuluqahu mooy ka ngay takk day fekk ne da ngay gërëm diineem gërëm jukkoom su ko defee loolu daal mooy maadaama jurit la soo ko bëggee takk dañ naan def nga lu dagan koo xam ne nii itamit da ngaa gis ne moom day sunna leeragul ci boppam ba nga koo takk da ngay fexe ba jàngal ko sunna xamal ko sunna loole mooy la nga xam ne nii mooy la gën euh, ca wàllu gëneel la ñuy wax ca loole mais nag nekkul ci ne rek képp ku koo xam ne dundul sunna rek séyeg moom dafa xaraam déedéet ka nga xam ne moom la séyeg moom xaraam mooy yéeféer boo xam ne gëmul diine gëmul yonent yàlla bi mi ngi noonu lu dul mu def ay jëf yoo xam ne da koo génne ci diine masal koo xam ne da man du ma julli kooku moom da ngay gis ne beneen affaire la mais daal tant que mi ngi gëm principe bu l'islam ku mel noonu dañ naan suyig moom dagan na mu des nag ndax da ngay tànn suyig moom am doo ko tànn loolu moom beneen mbir la ci góor ak jigéen la gën ci sëy daal mooy ka ngay sëyal nga gërëm diineem gërëm jukkoom wallahu subhanahu wa taala alam naam naam aleykum salaam ah mu ne ndax lan ba juy am waaw waaw lu bu ñuy wax wàcc ci dëgg ngir jàmm am loolay mbiri àdduna yi moo tax ñuy wax mooy dañuy juyoo euh, doomu aadama bi da ngay gis ne heure bu juyoo amee kii day jàpp moo nekk ci dëgg kii jàpp moo nekk ci dëgg na doon ay frère ngeen na doon ay collègue de service ngeen na doon lu mu mën a doon yaa ngi dégg ko mel ne maa oyim ne Soufiane loolu daan wax ba ko gars yi waxee noo mën a jiite nit ñi mu ne ah man day lu ma xëcc bu ga- bu dëgg rek ma bàyyee leen gis ngeen loolu moom muy mbir bi loolu nag taxul ñu ñu ñuy wax bàyyi farata wala def lu xaram déedéet loolu moom amul amul kenn du ci négocier du bàyyi du yaay du ko mën a doon mais daal lépp loo xam ne nii du farata lépp loo xam ne du lu xaraam ñu nar caa juyoo mu nar a indi fitna li gën mooy ñu daal di bàyyi masalan mu laa joxe benn misaal rek dañuy imaamu ahmad dafa ñëw ci benn jàkka gars yi coow li na kur yeneen ci bàyyi salaam onze rakka rek lu doon julli ñii ne non non non dañuy julli vingt rakka masu lu xaraam dañuy julli vingt rakka ñëw ñëw ci imaamu ahmad mu ne waaw ndax su ma attee ñëpp da ngeen d'accord mu ne waaw mu ne nañ julli gee tëj jàkka ji ñëpp dem naa fi seen kër gars yi ne ko waa imam waaw sunna sunna tarawih nag mu ne di yéene wax sunna la tarawih sunna la kaddu jullit ñi farata la nañ def farata bàyyi sunna yi ñëpp tëj leen jàkka ji ngeen dem julli seen i kër kon kon daal yu mel noonu rek la ñuy wax mooy tant que mën nañoo fexe ba kaddu gi nekk benn ngal la waay ca du ñu def lu haram te du ñu bàyyi farata fexe ba kaddu gi nekk benn loolu mooy la gën ka nga xam ne moo bàyyi ay aqam bàyyi ak dëggam te yàlla rek a tax mu def ko ngir kaddu gi nekk benn lu mu yàgg yàgg résultat bi yàlla dana ko delloo ci moom yàlla na yàlla boole suñuy kaddu may ñu afiye fi dunia wal axira xam naa it 1000 francs bi ngeen di ja barkeloo par mois incha allah mbokk yaa ngi leen di xaar ci biit bitti yàlla na yàlla nangul leen te barkeel leen wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain